ay njaay ndaw si bu génnee fii romb xale bu góor bu yor ñaar na ba mu xam ne kii góor la dina tëdd ak yow ay subhanallah xam na la xamula génn ngeen génn leen moom daal nekkal góor mu dajeeg yow dina dina la kii ni na ko abaad waxee dina la iri ii subhanallah moom ban xeetu rab la yor bu soxor rabam bii moom xam nga loo groupe boo gis am na ay kooba rab ko rab kooba kooba la mais Rabbi Diaga la ah. bu mag Ndiaye li ñu boo ñëw na wax nga wax rek. ñu déglu ko fi nekkoon da koy wax ay ci ñu déglu. fu nekk na pour faju mais fu ma dem dañ ma faj ñeenti sëriñ ñi dem yëpp ñett ñi faj parce que sa rab bi def naa menacé nee nañ ma bu ma la ma ñëw toog dama a ma toog toog toog yu yàgg ma am kuñ ma booleel benn sëriñ bi dëkk dem expliqué ko lépp mu xëyee def mu jox ma benn butéel ma ñëw sangu ko ñoo bu ginnaaw subaa nga ñëwaat ci bi mais ginnaaw suuf boobu noonu joxuma garab parce que sëriñ bi moment bi may wax ak yow nii dafa feebar ba sonn mu ne ma mënatuma faj parce que yow sa àndandoo yi dañoo soxor ne dañ koo menacé moom moment bi may wax ak yow nii dara mënul ko feebar ba sonn moo tax instant yi ñu metuma dem ci benn naan damay faju foofu ndax wóoru ku man nii damay histoire te ku ma histoire rabbi day jëflante ak yow ku ma xul loolu dina ko feebar feebar loo bu soxor feebar bu métti boo xamante ne moo tax man dama dem ba dama mujjee ragal histoire ñemeetu ma ko te aussi rapide damay dem bu ma génne ci mbedd bi nii gis ko rek damay am envi sëy ak yow lu bon lu nekk la may def loolu damay tëdd ko di sa di foowe sama bopp wala may am envie tëdd ak góor góor na jëkkër nag mënuma ko am damay wax waxal ko ni ba mu wax ma wax say du ma ko gisaat li ci nekk yëpp yëpp yëpp métti na métti boo xamante ne bu doy waar laa lay wax ni des fois da lay daaneel fekk la nga liggéeyi wala nga nekk ci mbedd bi sul yére bu jot xam nga daanaka nit ñi dañuy gis sa yaram ci lool neexul ci xol aw ma ku la faj mënumaa dem fenn pour faj foo dem kooku ne la mënu laa faj loolu tax ñu métti aussi dem dem ci sëriñ ban mi fu mu liggéey nii du ma fa am deux mois ma fa liggéey ay un mois quinze jours yooyu dinaa xuloo ak patron ba bàyyi parce que sama xol day tàng damay mer rek damay mer sama xol du neex moo tax mënu ma yàgg fenn ci liggéey fu ma liggéey rek bàyyi gis góor nii rek am envie sa yëg moom góor gu ma nekkat tamit dama koy jox sama bopp parce que man tout temps damay am nekk ak góor damay tëdd ak sama far yi rek mën nga maa ñàkk doxaan sax ma jox sama bopp parce que benn jour loolu mos na ma arrivé génn noonu am fu ma doon dem benn xale góor yóbbaale ma dama leen sama kër jékki-jékki ànd ak ma duma ànd ak moom tamit damaa tëdd moom te nekku sama faddu sama dara loolu daal daf may arrivé à tout temps sama xel ci loolu rek lay nekk daf may poussé ci loolu nee naa la góor dama koy gis ni ñu xamante ni comme waxante ni rek mën naa ànd ak moom këram jox ko sama bopp te sama fal